jëwrin gi ñu dénk lépp lu aju ci wàllum dem gi dikk gi amal na tukki goo xam ni ci saxaar gi la ko amalee ci yoon wi di Jurbel Tuuba muy nag tukki goo xam ni dafay firndeel tàmbalik yëngatu yi ci saxaar gi nga xam ni caatum atum 2017 la taxawoon li ko sabab lu nag du lenn lu dul fexe ba yombalal taalibe yi dem gekk dikk gi ci màggal gi président Macky Sall pour saxaar si dawaat toog na ñeent walla juróomi at yoo xam ne dawul tey jii suñu borom def na ñu ànd def maanaam le voyage inaugural loolu mooy lan mooy bu màggal desee ñetti fan saxaar si dana daw jóge Thiès ñëw Touba walla mu jóge Diourbel ñëw Touba jóge Touba dellu jurbel jóge Touba dellu Thiès. ginnaaw nag tàmbalik saxaar gi ci jamonoy màggal gi saxaar gi nag dina indiwaat ak taxawaay gu mucc ayib rawatina nag lu soxal wàllum transport bagage bu nu sukkandikoo ci Mansour Faye. waaye lu ñuy jëkk def mooy train marchandise te daan ci liggéey train marchandise yu jógee ñëw Touba. comme ça commerçant yi nga xam ni dañ jël ay camion du yet seen conteneur du ko ci jàpp du ko indi mu cher loolu ñu mën jël saxaar si marchandise mu jëlee leen si ay conteneur jëlee ko port de Dakar indi ko fii ci Touba loolu dañ koy nu mu gënee gaaw après magal bi war naa mën a tàmbali avant yi yéen tàmbal jëwriñ nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu aju ci wàllum dem ngeeg dikk gi di dalal xelu taalibe yi ci ne daanu jël mboolem matuwaay yi nga xam ne war nañu ko jël ba tukki gi ni amal ci Thiès Touba mu mun a doon tukki gu mucc ayib yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al TV te bu leen fàtte laal cloche bi